xam ne kenn euh, le maire euh, bu fekkee ne dañu a def affaire boo xam la engagé te mom gisu intérêt da ngeen gis ne loolu dinañ ko fésal di ko di mais bu fekkee ne loo ça veut dire ça engage do len gis ñu fësal ko ba si votre budget bu bu ren bi xamne chaque année dañ ko don def genre tintamarre di ko publier di si wax di si wax mais cette cette année ci gis ngeen ne lolu amul parce tout simplement ñom ils ont constaté que ni mu ngi commencé am ben éveil de conscience te ñii ñi ñu gën a am implication par rapport ak ñom seeni seeni momel na ñiñ ko dénk nan lañ ko yore ngeen di si jangat ni tey jii nii euh, ba si public reportage euh, si reportage bi xam ne moom moom moom la ñu moom la ñu suivre ndoo ñun ñëpp te mu ngi sama mur Facebook ngeen gis ne ñoom ils ont parlé de délibération boo xam ne conseil municipal bi ñoom ñoo ko def mais man tey jël naa sama téléphone woo ay conseil ay conseil municipaux yu bëri laaj leen ndax ñoom am nañu connaissance su euh, délibération bobu xamné mom lañu wax né euh la lañu def ci zone bobu parce que bo leen dégloo ci biir fin wu reportage bi euh, le journaliste wax na ne il a interpellé le euh, le président de la consi de la commission domaniale muy Sini wo naka laaj par rapport à Fofu, mu wax ka ne Fofu, daa am une foofu dafa am une partie bo xamné dafa nek ci domaine national Té il y a des, il y a des, il y a des, il y espaces. Euh, y a des y a des y a des entreprises ah, ay yenn dañ ko prévoir infrastructures yo xamné dañ ko prévoir sur le même site. wa légui tey je damay interpeller non seulement les conseils municipaux interpeller le maire interpeller surtout le président de la commission domaniale bi xamné ne ay at yu bari ñom ñoo fi di bu dee ne yéen a ngi rappelé wu coow li fi amoon diggante Sococim ak Bargny l' actuel président de la commission domaniale bokkoon na si ña taxawoon di ko xeex man jamono boobu j' plus jeune taxawoon naa bokk si di ko xeex ak ñoom tonton Aly Gueye et tey ñooñu bu fekkee ne ñoom ñoo wax di campagne di politique di wax ba ñoom yàlla def ñoom loolu tàbbe seeni loxo defe naa ne war nañ si am beneen taxawaay bu dul di brader. ça veut dire que nous sommes parce que nous ñu mën a reprocher euh, Mar Diouf le maire sortant moi ce day la xam ne def na fi mu scandale délibération moi attribution bi xam ne nañ la Sococim dû à ce protocole d'accord bi xam ne ñoom la une partie des terres de Barni à la Sococim pour leurs extensions de carrière pour les siècles à venir loolu nekk na scandale boo xam ne ñu bëree bari mënuñu mënuñu ko tolérer loolu mais li ñu mën a jàpp si lii nii mooy boo leen xoolee tey le pole urbain de Diamniadio le décret du pôle urbain de Diamniadio 1644 hectares de superficie la actuellement tey dañ ne les pôles urbains Mbambilor mu ngi si Sangalkam mu ngi si euh, euh, Rufisque mu ngi si Bargny mu ngi si comme ni mu ko waxee woon démb. mais 1644 hectares le décret bi wax comprendre né actuellement lii pôle bi occupé actuellement ni. ëpp 2000 et quelques hectares di dem ba l'emprise de Bargneville Verte y euh, a une une partie qui xamné sax dafa dafa nous lu xawona sax pôle bi ñom ñu doon wax une partie qui xamné dañ ko déclasser pour attribuer à l'extension

mbirum Bargny rek moñu ñor yëfu Bargny rek moñu ñor ni ville yep nekkee en compétition ba non seulement par rapport à leurs ressources humaines par rapport à sen sen sen sen sen sen sen extension par rapport à sen développement ñun lool rek moñu intéressé mais nit ñi dafa melni ni ne booy wax duñ la parce que tout simplement affaire de par par loola fi la bok fële la bok ñun loolu ça nous intéresse pas ñun dañu taxaw xeex parce que ALB ànd liggéey ba ñu taxaw na xeex at yu bari ñu taxaw di wax gars yi organiser cadre dem ci élection tay jii ñi xam ne ñoo toogoon di opposé wu depuis des années bi fi maar nekkee bu fekkee ne damay waxee foofu damay wax ci Siini bi xam ne bokk na dans tous les combats moi, l'actuel président de la commission domaniale yi nga xam ne Barnier daf ko doon mener à l'époque tey ñu dénk que la commission domaniale buñ ne buñ ne buñ ne euh, dañu signer le protocole de la centrale à charbon si magistèram la buñ bu bu ñu si si si si si zone zone zone bi ñu bëgg a duppe pôle industriel te mu nekk EDK c'est kaw si magistèram la bu ñuy wax si

boudé boudé boudé dañ ne pôle urbain ñu né Bargny bu féké né centrale à charbon ñu né Bargny bu féké dañ ne port minéralier ñu né ñu ne Bargny ça veut dire ñun ñu bëgg ñu def ben pôle industriel ba ñun amuñu espace de divertissement wala d'épanouissement bo xamné ne tey jii nii am na léguer les les les générations futures mu nekk lu yéeme lu doy war tey jii nii waxoon naa ko samay vidéo précédent an ñi taxawoon di wax ne votel leen ñu votel leen ñu votel leen ñu tey waxoon naa leen ne bu fekkee ne dañ leen woo sur l'essentiel du nekk seen yitte torop mais bu fekkee ne dañ leen nañ nañ nañ nañ nañ votel diw nañ def votel diw seen yitte lay nekk torop an ñi fi taxawoon di leen woo di leen wax ne votel leen tey clôture boobu ku ko gis nga xam ne ay travaux de grand envergure la te boo leen dégloo euh, fin wu reportage bi dañ ne le euh, le journaliste dana bimu le président de la commission domaniale muy Sini dafa wax ne fofu prévoir nañ fa ay infrastructures dama bëgg ñi ñuy déglu ñi suivre ñu xamné ne l'enjeu est très grave barni du këru këru doomu yaay wala këru dom bay ça veut dire ñoo bokk té te tant que ñoom ñu ngi def ñun ñu ngi wax mais dafa am foo xam ne bu ñu fa tolloo dañu war a tollu ci temps wu action parce que kenn umpalewul ci état bi ne Bargny ñu ngi koy yenn lu mu antanul barñi amul zone d'extension amuñu dëkkuwaay yi fu mu war a màgge fépp fii xam ne dañ ko war a occuper fépp fii xam ne nit ñi war nañ ko dëkke état bi def na ko ay travaux fépp fii xam ne dañ ne woon ne lii day xanaa buñ jëlee lépp dinañ ko bàyyi ak ñun état bi accaparé na zone boobu mu mel ne la ça veut dire la délimitation des quatre communes ba léegi leen en 2016 le préfet du département initié woon na kii boobu ak ANAT ñu ne dañuy def la euh, la délimitation de Rufisque Diamniadio Bargny Rufisque ouest Rufisque est nord etc etc bataille cetera ba 2016 la wax ba tey jii kenn defu xamul les limites de Bargny mu mel ni ne état bi lenn rek mooy motivation c'est que ça veut dire def la délimitation des limites de Bargny parce que tout simplement dañu bëgg a grignoter li ñu soxla lépp ba pare door a wax ne fii la Bargny limité wu. mu mel ni Lolo, bon loolu wax damay wax ne le maire est complice parce que nous avons un conseil municipal conseil municipal aussi dañ complice ay parce que tey vous faites un am un conseil municipal boo xam composé de 95% d'analphabètes ak quelques personnes yoo xam ne ñoom ñoo fa nek di comprendre les enjeux loolu c'est un véritable problème loolu nak bu fekké né ab dëkk dafa tollu moy nit ñi dañu wara jël seeni responsabilité parce que nit bu fekké ne da nga dénk ay nit yo xamné ne gis nga né ñom seen sens de responsabilité manul déceler lo xamné ne day ñëw dafa dafa dafa jaadu duñ na conseil municipal valider na ben affaire affaire rek que conformément au respect de la législation que nous devons nous conformer ci loolu mais war nañu taxaw mu am ay citoyens yu taxaw bind ay recours au niveau du euh, de la préfecture binde institution concernée man loolu la jàpp bu fekkee ne dañu war a taxaw def ay doxu ñaxtu ñu ñu à la législation sénégalaise Nous def loolu man loolu mo si nek, sama gis-gis tey jii Gana bi xamne mom elle est la première adjointe au maire An Mohamedou Taha Samba bi xamne mom il était premier adjoint au maire au temps de Mar actuel conseil municipal est-ce que ñu ngi dem conseil municipal ban ban barñuma moma ma wax Waré Gane ñaata ata ngi ni demul conseil municipal Taha Samba ñaata ata ngi ni demul conseil municipal ban barñument moo ma wax ñom demati Samba ay Mansour Samba ñi xamné ñepp dem conseil conseil municipal amul ben session yo xamné si yi mujjën yi de dem nañ fa mo ni ñun dañ leen ba pare ñu ka ben ben bande de copains bo xamné li leen ci neex lañ ci nekk di def te kenn du wax tay bu souffrir souffrir de ses fils parce que ñun ñoy gis luy ñew suñu pour des intérêts crypto personnels man nañu brader Bargny tay ji yéen a ngi vous y'en yep, ngi constaté ne Bargny ñu ngi koy ci parce que 2014 la fi boo leen xoolee ñun Mar il a fait plus de 30 ans c'est boppu institution bi deux mille quatre deux mille deux mille quatorze la ñu la la ñu am un changement ñëpp yuuxu kontaan ñëpp kontaan jàppane dina am changement mais li fi li fi li fi jóge sax li fi jóge sax moo gën li fi nekk nii actuellement nii mu mairie boo xam ne amul un service technique adéquat boo xam ne ça veut ñi ka ŋànk seen xel màcc na si loolu parce que tout simplement. àndoon nañu campagne c'est des postes de nomination de de récompense def nañu loolu mairie boo xam ne amul un administrateur amuñu ay conseil juridique amuñu ay conseil technique axbar ñi li fa am si expertise lépp li fa am si ay kàngam lépp si domaine boo mën a boo mën a jàpp parce que tout simplement maire bëggul liggéey ak ñoom bu fekkee ne nag maire dañ ko dénk te bëggul liggéey ak ñoom ñun dafa jot ñu jël suñu ay responsabilité mu am une forte implication citoyenne par rapport à suñuy momel ñun ñu ngi wax sa yu jaree ñu wax ñu ngi wax sa yu jaree ñu wacc terrain bi ñu ngi wacc terrain bi sa yu ñu waré taxawal Bargny xéxal Bargny def nañ ko si ku si ne si lo yëngu mais mu melni ne fa ñu taxawoon ba tey jii foofu lañ taxawee rek tey jii nii li ñu bëgg a tabax foofu quai pêche bi kañ lañ koy inaugurer une semaine avant les élections la ñu inauguré le quai pêche biñ ko inaugurer ba léegi dañ ko tëjaat biñ ko tëjee dégg ngeen ci reportage bi. Euh, muy muy muy muy muy le GIE euh, interprofessionnel de pêche li ñu wax dañ ne ñoom dañ ñëwoon pour def sa état des lieux ñëw fekk fa travaux yooyu léegi quai de bi nan la ma mënee cohabiter ah genre espace yooyu ñu wax ñooñu parce que nee nañu ay genre supermarché lañ fa war a kii ay grand espace lañ fa war a def te foofu gis nañ ne ñi moo ëpp ay accident zone bi ñu bëgg a tabaxee noonu dama bëgg bu baax ngeen ça dama bëgg ñuy dëglunte bu baax. et que avons wax ak suñu nous taala ñuy wax implanter accident parce que virage la ngeen xol ne euh, reportage bi da ngeen ne dañu ça veut dire dañu avec de pêche effectivement ils ont parfaitement raison ñi xamne ñu secteur de pêche parce que bu fekké né da nga joxé ben quai de pêche joxula leen espace parce que ñom wax nañu boo wax né ça veut dire partie biñu wara réserver à la douane extra extra mais yoy yep ngeen gis né mu ngi am te barñuwaa ñu ngi toog ne tekk ngeen comprendre manœuvre yi maire di def maire bo xamné ne buy wax tu as l'impression que porte-parole du gouvernement moy wax alors que mom dafa wara wax pour le compte de ses administrés Si vous avez mooy njaay bi ngeen ko déggee muy wax si affaire port non c'est un acquis pour Bargny pôle urbain de Diamniadio l'ici euh, maire maire de la commune de Bargny communique, porte-parole du gouvernement ça. wala le délégué général chargé de pôle le ministre du Sal. wala euh, euh, ñi xam nous ñoo une centrale bi ça, du ñu communiqué noonu dafa maire mon mon gérer la communication de l'État du Sénégal parce que boy wax du pour le compte de ses administrés mais day day day wax parce que tout simplement mu ngi mu ngi tout simplement li omnibule la def ba Ben poste nan la nga gis nga administration il était chef de cabinet du ministre Omar Gueye ministre de la Paix tintamarre bi ngeen si gis yépp si inauguration bi gis ngeen ko actuellement le ministre de la pêche lan la occupé euh, euh, l'ex ministre de la pêche Omar Gueye lan la occupé collectivité territoriale loolu administration la laaj est-ce que dinañ ko reconduire léegi bu fekkee ne da nga bëgg a neexal da nga bëgg a neexal Omar Gueye wala da nga bëgg a neexal euh, le président de la république pour benn poste de nomination nga la waay monsieur le maire bul sacrifier Bargny bul sacrifier les générations futures mais nak histoire day répété wu ki xamné ne mosul am liguey xamuñu lu mu doon def France ñew xey ñu jox la ab institution au regard de tous parce tout simplement les Bargnois ñu si ëpp bok wala cadre yi ñu si ëpp wala ñi xamné amna am na niveau d'information ñi ñu si bok bëggu ñu jël seeni responsabilité mo waral tay ñu joggé ci cim dal si cimbay fan la jëm ak équipe municipale bu bess bi y'a le directeur de cabinet y'a le président de la commission domaniale y'a le maire ça veut dire ñoñu rek ñoy décider ñenn rek mom bu féké né dafa am ñuy jaajëfal si institution locale bi man day sama baat ci kaw la kay wax moy ñaama jonne sa yo démé bëgg bëgg wala nangam ça veut dire service le rek mom ngay gis ne dox na mairie mu ngi dox mu opérationnel mais gestion wax amul kenn ku la wax ne Li la conseil municipal parce que conseil municipal bo xamné délibération bobu ñuy def allusion légui ni reportage mais man j'ai appelé ay ay conseil municipal ay ay conseil municipaux yu bari mais amul kenn na commencé si si ñema kenn ma si wax né yek na lolu yek na ne fofu amna ay délibération yu ñu fa def mo mel ni lañu doon wax histoire mu ñuy gën a jox raison bari ñooy tex duñu du ñun lan mooy suñu problème est-ce que ñi Sénégal ñi fi dëkk ñëpp ñun ñoom ñoo ñu gën wala ñun ñoo leen gën wala ñoom dañu am benn niveau d'intelligence wala niveau de réflexion boo xam ne ñun tolluwuñu fa wala ñoom dañu am ça veut euh, matière grise boo xam ne dafa nekk ci ñoom te nekkul ci ñun ñun ñoo bëggul barñi moo tax li may wax chaque jour boo koy xool dans le fond day mel ni danga naan barñuwaay jaruñu ko mais barñi jar na ko. une partie des Bargnois jaruñu ko mais Bargnois mais Bargny jaar tant que ñu ngi def ñun continuer di dénoncer té je crois que actuellement fa la euh, ñun république lañ na war actuellement fepp fu maire défé délibération bo ça va à l'encontre des populations

Nous ngi parce qu'on est trop passif nous avons un problème parce que maire bu si ne dafa déraper ñu ne avons da Nous, déraper mu continuer rappelons rappeler à l'ordre Nous continuer nous ñu def ce da def parce que maire du du ñi ma leen wax fii yépp ñi ma leen fi tuddal ay Waré gànnoo ay Taaxa Sàmb ñépp ñi ngeen fi déggoon ñu taxaw di battre campagne et cetera mais ñooñu ban yoon ngeen dégg depuis 2014 ba tey ñu taxaw je pèse bien mes mots 2014 ba tey kan ngeen si dégg mu ñëw taxaw population yi woote ñoom ñu ñëw te élection yi di ñuy jubaat nii élection municipale di ngeen gisaat di ngeen gisaat ces mêmes personnes taxawat né dañ ñoom ils veulent briguer le suffrage des Quand est le Bargnois yi di jël ces responsabilités. tey jii ni le maire que mu que mu que que que que ñu nommé que mu nek à la fin de de son mandat lu mu si mën war nañu mën taxaw bind ay OFNAC nak bind institution yi mu concerné parce que ñun ci république lañ ne newuñu ci dictature néwuñu ci royaume Bargny jël leen seeni responsabilité ñun bari na damay joxé juste ay anecdote bi ñu naan pôle urbain de Diamniadio man bok personnellement ah ñi ma sa àndaloon ñuy xeex bi ñu naan pôle urbain de Diamniadio le pôle urbain superficie de 144 1500 1000 1544 hectares loolu ça remonte de 2015 boobu benn brique première pierre bi sax tegaguñu ko tegaguñu ko pour pour pour la construction des des des de la des nouvelles habitations ñu di si wax déet ñu di si wax ñu di si wax di si wax ba fi ñu toll pôle urbain bi ñëw na histoire jox nañu raison non ñu ñëw ci affaire centrale en 2008 di avons wax di que wax fa l'histoire nous a encore donné raison Pour minéralier bi biñ histoire joxat nañu raison si bu féké ne dañu continuer di wax histoire jox raison du wax fa dëgg yalla bu en bañ sa vous bu dulé sa mais jarul taxaw bi mu fi nekkee ba tey lii mu ngi koy wax defu ko lii mu ngi koy wax defu ko ñii ñu ngi wax ñu ngi gis mais doo leen taxaw ngeen ressaisir kañ la Bargny amoon problème boobu an intégrité ak dignité lébu bii xam ne moom lañu la ñu ñun suñuy maam loon lan moo nekk lan moo ne lan moo nekkati patriotisme an patriotisme bii xam ne suñuy maam moom lañ ñu bàyyiloon ne ñu ak nit da ngay diñ dangay ngay dangay xam yow yaay kan dangay xam lan nga bëgg taxawu sab askan si jaamu yàlla la bokk loolu wax nañ ko waxati ko alxuraan la te ba tey jii ñu ngi li ñu nekk di dund ñu ngi koy dund ba léegi nii mu mel ni ne nit ñi ku ne si am naa kër am naa jabar am naa doom li ma yàgg a wax la vie ñun amuñu ay njaboot man me di wax ay yeen awma njabot awma jabar awma dom yo xamne leen wara dundal di leen entretenir terewul yaxul dara ci suñu ay activité yaxul dara ligai, suñu liggéey ak nan lañ wara yoré suñu njabot mais man parfois damay tok ba mu bëgg barña sax am la live bi jarul ñuy gudd jarul ma di guddal chaque instant dina wax né jël euh, nañu jël suñu ay responsabilité nañu jël suñu ay responsabilité bala muy trop tard parce que bo len xolé fin wu article bi ñu ngi wax le président de la commission domaniale biñ a ko au téléphone dafa wax que lolu intox la ba cité euh, article 80 euh, des collectivités locales activité 80 euh, article 80 des collectivités locales même bu féké ne dañu wax ne dañu wara def ay délibération war jaar conseil municipal war nañ ko valider mais walu askan bi dans tout ça lan ñaata conseil de quartier lañ fi lañ fi lañ lañ fi mettre en place Bargny yeen lay waxal ñaata conseil de quartier ak bi si am yépp fan ngeen déggati ñu né leen conseil de quartier conseil de quartier nangam def nañu nangam wala conseil de quartier nangam lii lañ proposé comme programme ah tintamarre bi fi am conseil de quartier le maire a fait le tour de Bargny pendant des mois décision décision yi day jóge day day day day jóge ci suuf yéeg ci kaw dafay ko campagne tent tympaniser ñen ñi di glorifier né, ne man maay président conseil de quartier lan la leen jariñ président conseil de quartier bo xamné quartier bi ñoo taxaw la bu quartier bi a metti taxaw wax bu quartier bi lu muy souffrir do dem maire comme ni 3 euh, euh, de la décentralisation waxe nit comprendre le pouvoir du maire parce que le maire avant qu'il soit maire le conseil moy conseiller la d'abord c'est un conseil comme tous les autres conseils mais le conseil municipal moi, il faut le maire maire le pouvoir Quand vous ne la manipulation quand vous comprenez ne comprendre le maire il est le porte-parole du gouvernement à ah, Barney. parce que tous les projets si vous comme les ma wax si vous wax pôle urbain nga ne mom moko jangé won wala mom mo bind projet bi buy wax ci port euh, port minéralier bi nga ne mom moko jangé won jàngi woon buy wax ci central bi temps yi buy wax si central bi sax da ngay ni comprendre day wax ne euh, du mom moy yuuxu fep si aduna bi ne d'accordul ci central bi fep nak Jeune Afrique France 24 etc etc mom mo ñëwaat taxawaat fi di wax ne yoy c'est des acquis pour pour pour pour pour pour le département koku nonu taxaw wax dëppaat veste bi dippal ñëwaat ka taxawat waxat bu fekke ne dafa continuer ci lolu jarul yeen ngeen taxaw jël seeni responsabilité taxaw setlu ku mel nonu bu jité liñ naan l'erreur est humaine mais si ça se répète c'est diabolique ku mel nonu bay ili doon na wax ne dof bu nek ya mom saw ñandit foofu laay tëjee wax ji maa ngi leen di jaajëfal.